bu Cheikh Ibra dee bunt bi maam Saliou Fall mii di caabi ji ndax ba sëriñ bi wootee yoon wi moo ko xibaar Cheikh Ibra magam ji Cheikh Rafal ne ba yàlla ne kun la sama rakk ji na ma tàllalal say loxo boobu yàgg na cay borom daaru xafoor ngunda saa biige maam Saliou amul morom sëriñ Bamba ko tuddee woon doktooru lislaam ngir ku ñëw dëkkam bi mu faj tawatam mës naa wax teen bii ci dëkkam bi lu mu mënta saafara amul ci dund bi góor yàlla bii rakki Cheikh Ibra borom daaru xafoor borom kéemaan la sëriñ Asan maam xalifaam yàlla na fi yàgg lool falte